musique boole na ñaari doomu aadama yoo xamante ne nii dañoo bokk cosaan mën naa koo wax mm-hmm. bokk fi ñu jógee mm-hmm. tax ma njëkk a tàmbalee samay kàddu dina démb la Papa Diouf duñ baax doomu Pikine la mm-hmm. te maam Cheikh doomu ñaar tali la te ñaar tali Pikine fu ñu sa daje du yomb mais ñaari mais ñaari tali laa juddoon waaye dëgg la man laa loolu nee naa duñ baax waaye dootul baax Papa Diouf doomu ñaar tali la ba tax na biir ñaar tali tax sax moom xam na ni euh. ko waalo ak ko ñu bataa bu ñu daje du yomb. du yomb day yëpp di leen siyaare di wax ni tey ki nga xamante ne nii moom moo tax ñu teew. Mhm. dafa ñëw ngir am loo xamante ne nii daf ko indiwaat. Mhm. ndax seetlu nañu ne culture sénégalaise doomu Sénégal doomu Sénégal yi bëgg nañu ko. te ñu ngi ciy bay seen waar ñu ngi ciy suuxat loo xamante ne nii tey sunu maam yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon kontaan nañu waaye kii ñëw dafa am loo xamante daf koy te olof dafa ni ku yokkul da ngaa wàññi mm. ci li nga nekk te moom dafa ñëw pour yokk te li mu ñëw ngir yokk si dafa am solo ndax bi mu ñëwee tàmbaliwul ci loo xamante ni ñun dañ mën nañ ko jàppee caaxaan mm-hmm. Papa Diouf caaxaan tëbu ko mm-hmm. Papa Diouf caaxaan yëkkatiwu ko Papa Diouf caaxaan collaboré wul ak moom mm-hmm. parce que gis gis nañ ci yu mag yi nga xamante ni ci la nekk ak ci la nekkoon ñu koy nuyu ma ma Papa Diouf te liggéey bu rafet bi nga xamante ni def na ci musique sénégalaise Pape Sénégal yëpp amel nañu leen njukkal mhm. ndax yóbbu nga musique sénégalaise foo xamante ni nii tey foofu la ko Youssou Ndour yóbbu yóbbu nga ko foo xamante ni tey la loolu lañ doon xaar ci yow muy loo xamante ni ñu ngi leen di félicité waaye tey collaboré nga ak koo xam ne nag ñoo bokk deret jërëm Faly Ndeye Mamadou jërë góore maa la Samba ku leen gisee maa kii du tëgg du taxawal lenn loo xamante ni nii du avancé ci kanam la jëm. bu ko sax ragal li gars yi naan ko ragal buñ ko ragal nañ dem ci kanam parce collaboration bi ngeen def collaboration la boo xamante Sénégal yëpp kontaan nañu yéen ñaar seen ànd Sénégal yëpp kontaan nañ ci suñu papa qui s'appelle maa ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan ci liggéey bu am solo bi nga def ci culture sénégalaise waaye suñu papa dafa yegsi alaaji papa Dieng papa papa Youssou Dieng papa yi ki nga xamante ne mooy a baax a baax papa jërëjëf sa wàccuwaay mbokki te it beneen mbir bu garaaw am borom Cheikh Adja doomu réew mi la. liggéey lu am solo ci Sénégal tey jeunesse su Sénégal lii la ñu soxla ay ndaw yoo xamante ku ci nekk ci domaine bi nga nekk da ngay évoluer ku ci nekk ci domaine bi nga nekk da ngay émerger. loolu la ñu bëgg ñu ngi ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci collaboration bi ñu ñaan yàlla suñu borom yóbbu yëf yi foo xamante ni nii xaaruñu ko ci Pape bis bu door daf ciy